ñu jàll ci euh, Mado ak bien-être hmm. tey mauvaise haleine euh, hmm. nga ñu euh, bëggoon indil jox ñu mhm. ci ay conseils. Mhm. Pape Cheikh comme ni nga ko waxee. Mhm. mauvaise haleine mu bokk ci hygiène bucco-dentaire. Euh, professionnels yi nag di ko gën a waxee halitose <laughs> halitose boobu nag tey mbokk téléspectateurs yi moom nañuy waxtaanee parce que daaw nañ dégg nii li nga xamante ne nag tubaab bi dañ koy wax. parce que nee nañu nu n'est incommodé par ses propres odeurs ba tax na yow daal xetu jàmbur rek nga mën a gis ba léeg-léeg doo sóoraale sa xet waaye li ñuy def nag dañu ta ak benn professionnel boo xamante ne <laughs> dentiste la <laughs> moom yan conseil nañu adopté pour mun a am nag une bonne hygiène <laughs> donc c'est tonton Gane bàyyi ma. ayca ñu xool élément bi. loo xam ne dafa am patient yu bëri si plaindre ñoo xam ne dañuy ñëw ñu lay jàmbal ñun la ñoom dañu amee mauvaise haleine mauvaise haleine lu bëri moo ko mën a indi léegi maladie métabolique yi dafa bëri lu mel ni diabète hypertension yooyu yu bëri dafay indi gémmin buy xeeñ si maladie waxuma ñu ko amee ñëpp dañoo amee gémmin buy xeeñ mais am na si ñoo xam ne buñ ko amee luy tax sax ñu boo ñëwee ñun seet si ñu di faju ñu xam ne yow feebar yooyu war nañ ko xalaat si yow mooy mauvaise haleine bi nit dafa war a fonk gémminam gémminam si yaramu nit la bokk booy waxaan nit yi am boo bëggee xam personnalité nit bi ñuy jàng suñu profil dañu ko da xool loxoom ak gémminam nit bi toppatoo ay loxoom di toppatoo gémminam kooku day toppatoo wér gi yaramam ñun jigéen ñi bu ñu négligé sunu sunu ay gémmin baax na si couronne artisanale li ñuy takk dent blanche li ko daami di woowee dent blanche yi quatre vingt pour cent dent blanche yi ñu koy takk nit daf leen di jox mauvaise haleine parce que bu ñuy couronne bu ñu koy defal boo ñëwee si dentiste mu lay defal couronne daf koy taay jël ay mesures ñu dem si prothésiste lu ñu woowee prothésiste dentaire mu defal couronne bi ba nga xam ne moom dafay épouser xaw ma nan lay waxee dafay dafay jël forme buñ bi bu dee yow da nga dem nga def couronne bi nga xam ne artisanal la ñoom dañ koy defar ba pare nga ñëw ñu tegal la ko des fois dañ koy adapté ba nga xam ne mën nga lekk léegi na yow soo lekkee lekk yi ngay lekk day dugg si diggante yi parfois nga lekk ceeb mu diggu si diggante yi am na lekk yoo xam ne dañuy wax ne moom dafay joxe mauvaise haleine lu mel ni laaj lu mel ni soble yooyu yëpp day dugg si gémmiñ bi léegi nag yooyu à la longue da ngay am mauvaise haleine te am na mauvaise haleine yoo xam ne yow mi ko am doo si rendre compte nit ñi ngay waxal nii nii nii te ñun Sénégal xawuñu am dëgg bi ñu lay waxee ne yow da nga amee mauvaise haleine ñu dindi d'abord corne artisanale yi dents blanches yi dents blanches bu dentiste defarul dindi leen ko day yàq bañ day indi mauvaise haleine cigarette day indi mauvaise haleine ak ah, yenn lekk yi ba pare ñu farataal brossage bi surtout bu ñuy tëdd boo xëyee brosse ndekki amul njëriñ na war a brosse balaa ngay tëdd boo xëyee boo galax ni ko sax lekk après nga brosse waat ak ah, hygiène quotidienne lu mel ni bain de bouche ñu si abusé parce que Sénégal léegi koo gis mu ngi def si saagam bain de loolu c'est de la mauvaise pub parce que am na bain de yoo xam ne dafay modifier flore buccale te boo ko a citer des mais mën nga ko utiliser nga complément si sa si sa ñu bëgg aussi pâte yi nga xam ne pharmacie yi ñoo koy jaay yi nga xam ne dafa am fluor am na pâte yuy jaay sur le terrain yooyu contenance bi ak ni ñu koy defaree dafay dafay des ñu sàmm suñu gémmiñ topp hygiène di dem si dentiste mënoo am gémmiñ boo xam ne bëñ yëpp dafa bënn bëñ yëpp dafa bënn ñu wax na nga ne dama ragal dentiste bi mu lay indi yeneen feebar indi la mauvaise haleine loolu aussi baaxul fa dentiste ñu ngi faj léegi am na yuy métti mais majorité yu lu bëri dañuy faj léegi méttiwul. dégg naa sax ñu naan euh, sa gémmiñ xasaw na sa doomi ndey la koy wax. waaw loolu dégg naa ko. gémmiñ bu xasoo moom léegi mu ne yow sa sa xetu gémmiñ doo ko doo ko gis waaye li tax wala di la di la mm-hmm. ko wax mooy mm-hmm. eh, ki la bëgg dëgg moo lay wax dëgg mm-hmm. ki ne la nekkoo ci njub wala lay raay nag moom sab noonu la ndax eh, dafa am ay pàcc yoo xamante am na ko am na yenn yoo xamante ne maanaam ci feebar lay doon ci juddu la donc moo tax léeg-léeg dañuy naan que da ngay dem ci ay professionnel bu ñu dégloo ci élément environnement bi mhm. nee na comme par exemple léeg-léeg nit ñi nga xamante ne am ay problème de stomac mhm. wala ñenn ñi nga xamante ne Pape Cheikh dañoo amee diabète mhm. léeg-léeg parfois dañoo am problème yi ñuy lekk léeg moo leen di ko jox comme par exemple lu mel ni ay soble yu utiliser lu mel ni laaj ak yeneen éléments yi nga xamante ne cité na ko ci biir ba tax na duñ ci delluwaat donc la plupart loolooy tax nag ñuy am ay mauvaise haleine day soppi xetu gémmiñ donc ñun li ñuy wax trucs et astuces. wala ay conseils yoo xamante ne euh, dinañ mën a sóoraale li nga xamante ne daal moo di xetu gémmiñ. Mhm. noonu lañ koy waxee xetu gémmiñ voilà donc képp koo xamante ne la plupart danga nga am ay li nga xamante ne carie yu bare. Mhm. dafay faral di joxe une mauvaise haleine. Mhm. donc on demande à dañuy laaj nit yi saa su ne ñuy faral di raxas li nga xamante ne moom moo di seen gémmiñ. wala di brosse mais di brosse après chaque repas. après chaque repas parce que dañuy faral di brosse avant. maanaam mais ba pare nga xamante ne dina nettoyer bu baax li nga moo di sa gémmiñ mhm. dafa amaat leneen loo xamante ne daf ci bokk nit yi du ñu farataal di raxas li nga xamante ne maanaam moom moo di seen làmmiñ mhm. Mhm. donc il faut savoir di gratter tout le temps li ñuy wax mooy seen langue di ko nettoyer bu baax a baax parce que léeg-léeg tamit dafa am ay microbes yoo xamante ne voilà ah. d'habitude brosse yi noonu la dañuy def beneen côté bi dafa am ay maanaam ay brosse yu ci am ay ñagas-ñagas c'est conçu exprès pour raxas li nga xamante ne moom moo di euh, làmmiñ léeg aussi Pape Cheikh dañuy conseil conseillé ñu yëy chewing gum mais am na ñenn ñoo xamante ne nag dañuy faral di yëy parce qu'ils croient que dina dindi mauvaise haleine mm-hmm. yëy boobu nag dañ koy conseillé baax na ci mais on te demande nga yëy chewing boo xamante ne ce n'est pas mm-hmm. parce que day permettre yi nga xamante ne aliments yi nekkoon ci petit trou trou yi mm-hmm. dina xaw a dem voilà mais chewing gum yi nga xamante ne dafa am sucre moom on conseille pas mais yi amul sucre baax na ñu di ko jël di ko jëfandikoo dafa mel ni pomme aussi dañ koy conseil nga di ko yëy bu baax parce que ah, dafa baax ci loolu voilà baax na ci ah. day dindi ah voilà bu ah. Mhm. Ah. Mhm. pour mu raxas seen ah. bët. exactement maa ngi doog comprendre ndax buuba saa yu xëy indaale benn. indi am na beneen chose boo xamante ne nit yi dañ ko faral di def mooy comme par exemple dañuy conseiller sax au plus dañuy conseiller nit yi ñuy faral di naan ndox balaa ñuy tëdd. parce que léeg-léeg nit yi ils ont tendance à manger ba pare tëdd. léegi nag boo tëddee boo yeewoo da ngay gën a am une très mauvaise haleine donc ba tax na nag dañ lay wax pour nga naan li nga xamante moom moo du ndox <laughs> daf leen di permettre voilà donc daal et puis lenn loo xamante ne c'est très simple bu eh. fekkee daf lay sonal eh. dañ lay conseil boo lekkatee ba pare mun nga hmm. yëy tiiju euh, persil eh. di ko yëy baax na dina dindi haleine bantu persil wala nga utiliser li nga xamante ne moom moo di clou clou de de girofle ñu koy naan ah, xorom polle voilà donc c'est très simple da koy da nga koy ah, il faut savoir que la base boo ko yëy daf lay jox huile mm. la plupart moom la utiliser di def huile essentielle de clou de girofle ba tax na da koy yëy mais boo ko yëyee Pape Cheikh doo ko avaler mm. da koy yëy ba pare tufliwaat ko da ngay boobu moom mooy ah, resté ci sa gémmiñ donc daal euh, astuce nañ leen doon jox pour ngeen mm-hmm. di ko jëfandikoo mm-hmm. pour li nga moo di mauvaise dégguma socc sump de. dégguma socc wér ak waaw ah, waaw surtout voilà pourtant maa ngi ko bind nii mooy les bâtons de cannelle bind naa ko sax. waaw comme temps bi a de cannelle le soupe. ak nepp nepp moom sax indi nañ ko yooyu ñaar dërëm lay jar waaw te indi nañ ko sax consommé sénégalais voilà ma ne maa ngi ci xorom pool léegi xetam mais Malo li sax na ah. muy ban muy tox mi mhm. ah boobu baaxul day yàq day yàq day yàq uh-huh. Uh-huh. day yàq lu bëri sax jërëjëf Ndeye Malle mhm. uh, ci uh, truc ak astuce yooyu ak conseils yi nga joxe jëm ci xeetu gémmin yàlla ñu ci yàlla mhm. musal et puis uh, lu lu lu lu baax itam ci gémmin di ree areet tam dafa am solo dafay tax sa gémmiñ di aéré ñepp gu bëri baaxul da ngay mm-hmm. euh, accéléré xet gi ba boo ko ibbee tooñ nit ñi kooku mooy fuñu waaw fuñu fuñu baaxul da yokk xetu gémmiñ waaw <laughs> waaw xet gémmiñam day xeeñ waaw yàlla na yàlla musal <laughs>